xam nga déjà moom. pour nga canaliser ko day yomb parce que door fab boo koy def mën nga daan ku ne te giri moom lay def door fab. waaw mën nga daan sax ku la man te Balla Gaye nekk na mbër moo xamante ne nii heure bu la jàppee mënatoo daan heure bu la attaqué nga le dootoo am victoire. dootoo ko daan sax parce que def ko mën te dafa mën a bëre. te dafa am doole. muy combat bu am solo boo xam ne gars ñu ngi koy xaar. waaw fi mu bëgg a jeexale yow nag muy coowul làmb. fan ñu ngi dégg coow CNG. waaw. na fi jógee Alioune Sarr. waaw doyal nañ 26 ans. loo ma ciy wax. Ah, waaw loolu day comme làmb ji yëpp ko wax. Mhm. xam nga ay nit nag moom ñoom ñooy pratiquants yi ñooy bëre. Mhm. ñoo yor làmb ji te yaakaar naa tey man xam nga man bëriwut lu may wax ci nit parce que man Alioune Sarr nekk fi ak mu ñàkk fi nekk man ku fi nekk man amoo problème ci man. Mhm. parce que man CNG aw ma ñoom benn problème làmb bu amee. chaque jour nu ma bàyyi ma dugg ci biir làmb ji di wax ak samay mbër di leen organiser kon dèjà man amuma ak ñoom benn problème. Mhm. mais nag dèjà bi nu commencé ba léegi mbër yaa ngi wax même promoteurs yi. Mhm. promoteurs yi génn yëpp ku ne ci nee na comme dafa yàgg vingt six ans bu ma ko doon conseil ak ay xaritam na bàyyi. Mhm. kon dèjà boo xoolee tey ñun bawol lañu ñu dëkk. te bawol boo ko seentoo Kajoor ak bawol. xare boo fa mës a gis muy xarab njob xarab mbul xarab sangaay mbool toujours nguur gu yàgg ko doon waral saa yoo gisee ab déquite manifestation yi ak révolte yi nguur gu yàgg moo koy waral waaye mosoo gis ku follu rek première mandat muy am ay histoire ak ay mars kon loolu rek moom war naa woon ne ne moom war na mën a dem ci loolu rek war ci mën a sukkandeku te euh, nit ki tey yow fii ñu nekk nii tey. nga dikk boo fekk ba doxee ba ca bunt ba ba sës fii ci man mënatoo dem fenn. parce que liggéey boo ci yàggee boo ak ci mënatoo ci def lu nekkul sa capacité. xëy na nag war ngaa mën a may ñeneen ñi sens it ñu dikk ak seen expérience. ak seen i moyens ak seen ay relation mm-hmm. parce que tey mën nga fi andi keneen tey jox ko làmb ji. Mm-hmm. mu gën tey décroché benn sponsor boo xamante ni mu mu couvrir làmb tey mën naa arranger làmb yëpp yàlla rek a xam lu ne mën na am mën na demit tey ñu soxlawaat ko waaye léeg-léeg ma dégg ko naa Alioune Sarr bu fi jógee kenn mënul yor làmb xam nga loolu moom uh-huh. tey ab du Diouf fi la nekkoon uh-huh. remplacé wuñu ko Ablaye Wade uh-huh. Macky Sall mi dañu koy remplacé làmb lan la doon du Macky Sall ñaata ministre la yor ah yëpp moo leen seere ak ay directeur jugeté ah, léegi mu xàjj ci benn ministre def ko ministre des sports ah Matar Ba seere loolu yëpp tey mu nekk fu téeméeri téeméeri discipline handball ball basket lépp Matar Ba gere ko jox ki CNC jox keelee jox keelee ah, loolu lépp Macky Sall a ko géré ci biir Macky yow nga bëgg ñu mën ko wute làmb ji nga xam ne benn dimanche la président nga la ñuy def mooy réunion lu ñu d'accord def ko article article un ba article trente six lii mooy règlement yi ah ministère des sports mooy nommé directeur administration ah arbitre yi code arbitrage bi la leen di jox ah lu lu ñuy def boo boo bu ñu tegee règlement yooyu yëpp lan la président CNG di def lu du tey mhm. bu mber defee lu jaaduwut dañuy xool ci code arbitrage bi sanctionné ko mhm. ñu loolu ñooy liggéey loolu parce que ay règlement la yu ñu teg mhm. président bi lan la day toog rek réunion rek lay ñëw kon kay loolu yomb na. mais Alioune Sarr dafa am équipe moo koy accompagner ci liggéey bi mais équipe boobu keneen ku ñëw it am équipe boobu. mais bu demee équipe boobu du ànd ak dem wala. équipe boobu nag la gars yi bëgg sax ñu dem nag far parce que Alioune Sarr du problème boobu équipe boobu ñooy doxal. équipe boobu Alioune Sarr naa la réunion rek lay ñëw bu nu xesee teg règlement yi moom du réunion lay ñëw. Mhm. ñoom ñooy appliquer ñoom ñooy def yëpp. bu ñu naa CNC kay mooy équipe bi. Mhm. léegi gars yi ñoom ñoo soxla équipe bu bees. léegi Bada Dione en personne ci biir làmb di indi mbër di ànd ak mbër di dégg coow coow amateur yi ak coow nit ñi na fi jógee en personne yow gis nga Alioune Sarr dem wala gis nga mu toog. non man moom wax dëgg yàlla mu dem ak mu toog man dara. intéressé wu ma ci parce que mosu mbëri bawol ñoo ma intéressé. Mhm. te man mbër benn mbëru bawol boo xamante ne nii tey mhm. ah, mës nañu ko aj wala mës nañu ko suspendre wala mës nañu ko def dara amul parce que ñun ay xale lañu yoo xamante nii dañu leen a yar bi ñuy dikk fii liggéey moo leen fi andi lambit liggéey lañu ko def ba dajoon la ñuy àndat mooy seen kilifa xam naa règlement yi CNC teg li ma leen di def loolu la ñuy def amuma benn problème ak CNC ñoom ñu dem ak ñu bañ a dem mu ngi défendre ci ministre euh, ministre bi waaye nag diw moom bu demee kenn du ko wuutoo war na dem ak yooyu moom man nekkul sama problème parce que CNC ñëpp samay xarit lañu am na ñu coow ni kat bu fi Alioune Sarr jógee war nañ ko mën a yor ñu ciblé benn benn ancien mbër muy Tyson ak ki nga xam mooy Keba Kanté ak beneen ancien mbër muy zoo technique noo gisee ñett ñooñu bëgg a wut Alioune Sarr moom man xamuma ko wax dëgg yàlla waaw waaye Tyson moom man xam naa ko parce que Tyson bi ma nekkee port di jaay verre boobu Tyson mu ngi ambacadère di garder salup bi jëm a nekk ci bunt bi ñuy daje ak Pape Cissé ñuy entraîner ci gaar bi musculation boobay booy la nu moom muy bëre si mbappat air liquide kon de ça xam naa ko baax soo teg bon moom man xamuma ko mais mais Tyson man man seulement bu doon ni mbër la ñu nar a jox CNG. nit ñi ma gis ci biir làmb kenn lañu ko ci nar a jox man moom a ci gën a doy man. man mosuma farak moom ci làmb. parce que Pikine la dëkk saal man moom laa doon supporter ñoom ñu nekk sunuy rival mu daan Cheikh Mbaba Cheikh Mbaba doonoon sunu grand man mosul nekk sama mber mais nit it bul soxor dañ koy nangul parce que làmb tey daa am lu nu soxla. soxla nanu nit koo xamante nii mosoo koo dégg ci benn coow ah soxla nanu koo xamante nii ci tey ci mber amul benn xaritu mber ku ñu ne kii mooy xaritam soxla nanu koo xamante nii kenn mënul ne eh, rànkiñee la maanaam jàpp nit rek en ko yaakaar naa tey seen tey leen rek jar naa tey nga koy xool aj nañu ko fi trois cent dag quinze millions ba mu ca paree kenn déggaatuñu ko ba sanction ba jeex bëriwaat na fi naqari la naqari la bu ne te kenn mësu ko dégg ci dara écrit Pikine mbooloo écrit mbër yàgg na faa jóge di xarab écrit ba wala nga leen di saboté wala ngeen di sànni mais bi mu jógee écrit Pikine mbooloo déggaatee su ko fa te kenn dëggaatut fa lu kenn ba suñu joni tey kenn xamul li ko fa jële kenn xamul dara li mu tàggook Eumeu seen kenn déggul dara mhm. kon dèjà man xam nga lan laa bëgg ci CNG ku ko yor mhm. nekk nit ku maandu te boo xoolee mbir yeneen yi nga fi gis chaque jour boo seetaanee réseaux sociaux yi ñu ngi saagante ñu ngi xasante ñii ay tiriyaa lanu ñii ay saj lanu kee day entraîné ji mber mee kii day sot mber mi kee day sot kee bari ay relation te tey Gris doo ak euh, Khadim Gadiaga am na lu lu lu ñu wax loo xamante ni tey. parce que dégg naa Khadim Gadiaga ne koo xam ne bi ñuy xeex mu nga nekk la jegewut ci xeex bi. kooku kon du jiite CNG. Gris Bordeaux wax ko mais kooku moo war a jiite CNG mais ku topp di xeex. am ñooy en ak ñoo enul kooku mënul a jiite kuy xeex mais tey seen CNG ku koy yor da ngay nekk nit ku neutre. pour régler ku normal. est-ce que est-ce que fi laamu toll kii jiite CNG war na bokk ci benn écurie. tey seen ban écurie la bokk. moom moo samp bul faale. bul faale ban mbër nga fa gis. ba tey am na ko fa nekk rek. tey seen yaa ngi fa. bul faale ba mu amee tey seen ba mu fa jógee la bàyyi bëre yàgg nañu ko laaj. bul faale lan moo tax doo andi mber yi mu ne man duma ma andi mber mber volonté la ñi ma doon andi ñooy andi booy yi te nit mosu ko gis mu ànd ceeg mber wala mber ne jàppale nal ma wala dimbali na ma boo xoolee écrit ba sax borewuñu ren far mm. parce que Tyson moom mooy doxee noonu man xamal naa sama bopp ne bu nu ko joxoon CNC du farak kenn. est-ce que su est-ce que juumu ma su ma juumulee Tyson nekkul léegi président équipe bu Faale. non même même bu ko nekkee Alioune Sarr président écurie Sérère la woon vice président écurie Sérère. Mhm. mais nit bi ñu koy tànn ci ci ko la ñu ko tànnee. te xam nga ne séeréer man séeréer laa séeréer a gën a ci àdduna ci ay critères rek xam-xam la nu ko tànne woon te ba nu ko ba ko ñàmmee doxal ko mm-hmm. yaakaar naa loolu dara feeñalu ko ci man ci Alioune rek la repéré wu mm-hmm. ne seen mën na jiite parce que mbër yi eng mbër yi ak mbër yi toujours ngay gis xuloo kee day tux yàmba kee sàcc la kee day def ni xam nga ñoom yàqal nañu seen bopp ba pare mm-hmm. te ñoom nit bul soxor ñoom ñoo doon kaas na làmb ñi boxe ñaari boxeur yaa ko doon pratiquer. Ah, ñoom ñoo ko jiite ba léegi. an bal noonu bal noonu football noonu. Eh, ñu dem ba tey ñu xool mbër bi nga xam ne tey moo war a jiite CNG ñu taxaw ne waru koo jiite parce que mber nanu wéri feneen te bu ko keneen jiite woon ñu naa ñee xamuñu dara parce que Tyson laajut CNG lii ma seetlu nii moom la nit ñi seetlu ah, te soxorunu kenn déggu ko même soxlawut Tyson man na ba ma ko géejee gis ba muy bëre mbapat carrière am yëpp teguma ko ci bot benn yoon laa ko gisaat bi Birahim Ndiaye yaayam gaañoo ma dem di ko jaale ji ñu daje fa booba laa ko mës a gisaat damaa foogoon ne sax xàmmeetut ma parce que boobaak léegi yaakaar naa diiru carrière benn yoon boobu la ñu ci mos a toog te xamante woon nañu. Mhm. mais ca kaw na muy doxe ak na muy doxale ah moo doon koo xamante nii ku mën a jiite CNC la parce que kiy jiite CNC doo bari xarit yuy dugg sa kër ay mber ak ay angélitaire ak ñeneen ñuy dara dara ci di complot yow parce que bu yàggee ñu waxal la dara il est nga dik boo tegee règlement yi bu mber defee dara nga appliqué ko jàpp sa njàmbur kenn du la teg bot te amul benn nitu làmb nag fii ci nekk ci ñu nekk ci làmb ji ku fi mën loolu lu moom mhm. kon Tyson ñuy wax xam na ne kii danu ko mooñoon dañu ko mooñoon ngir président CNG. moom la soo yàlla préparé woon. su ma la déggee Bada Dione pare na pour Tyson ñu jox ko CNG. bu nu koy jox nitu làmb. waaw naa dañu koy jox ci acteuru làmb yi. ah dindi CNC ba di wóor xool ci acteur yu yi d' accord naa mu jiite ko. parce que ah. gisuma keneen. léegi apartheid comme ni ma ko waxee sànq. ñu ngi ñu ngi wax ki nga xam ne mooy Kéba Kanté. Ah. di wax zoo technique noo gisee ñaar ñooñu. non zoo technique man xamuma ko wax dëgg yàlla. Mhm. du ma fenn. waaw Kéba Kanté man dinaa ko mën a nangul parce que mu ngi dimbali ay mbër. Mhm. te bëgg na làmb te mu ngi doon andi jokkel. est-ce que comprendre te niru na ma koo xamante ni moom xaw na neutre daal parce que. mu ngi mu ngi écrit Fatick. Mhm. di ànd ak waa Fatick waaye teewul day dimbali ay mber yeneen ak ñeneen nit yi làmb. Mhm. xam nga dèjà kooku it man bàññeelu ko ko ba léegi. Mhm. parce que moom du mbër bu ñu nee ci mber yi la ñu laaj. kooku man ba léegi d'accord naa am ñen ñi dina dinañu mën a jiite mën na nañu baax mais relation yi bëri na duglante yi bëri na xuloo yi bëri na xeex yi bëri na ñi leen yab bëri na ñi leen ind ak ñi leen rus mais nit ku maandu ku mën a dal ku mën a concentré wu si tee boppam limité ñu bëri kooku moo mën a jiite parce que tey CNG parce que làmbit nekkul caaxaan daa doon mbir mu compliqué bari nit ñoo xamante nii dañuy far seen sago la ñuy waxee bari ñoo xamante ni amuñu xam-xam xamuñu ci dara te dañuy xaacoo ni mu neexee rek wala nu ñu bëggee seen mber seen waaw su li seen mber rek la ñuy bokk la ñu xam moom la ñuy favoriser Alioune Sarr boo gisee mu mën ko gérer caractère bi la mhm. mën a am caractère bo kenn du xam kii sa xarit ak ki nga bëgg ak ki nga bëggul yaw tey seen kan mooy xaritam ci làmb ji ah, menam Balla Gaye rek nga dégg mun naa Tyson del may conseil waaye mosoo koo gis mu jàppale Tyson ci combat mosoo dégg ñu ne mu ngi koy entraîné mosoo dégg ñu ne mu ngi ànd ak mbër mosoo dégg ñu ne mu ngi ànd ak baabooy même Eumeu Sène bi muy bëree nekk écrém amut ku la mas ne mu ngi ànd ak moom mu ngi koy jàppale gisoo ne mu ngi soxlu mber defut analise ci mber nexut ci presse bi di yàq deru mber wala deru promoteur wala deru GNC wala deru kenn mhm. fi mu tollu Tyson kenn mënu da xam ki mu bëgg ak ki mu bañ. kon kooku nag man ku bu ñu nee bu dee mbir yi dañu doon kaas. ku jiite làmb hmm. waruñoo dem ba taxaw di wax tey seen ñoom ñu wal ba maanaam naa mënu koo jiiteeg daa génnoon làmb xam nga yooyu wax du waxi dara. xam nga Xaadim Gajaga mu ngoo di politique. Hmm. mu ngoo ngi jiite Rock Énergie. booy kay sama mag la sama frère la mu ngi jiite écrème Tafa Gueye mu ngi fas léeg-léeg ñu ne mu ngi ci Balla Gaye Baboy ñu ne mu ngi Pikine hmm. léeg-léeg ñu ne mu ngi Waalo léeg-léeg kii Xaadim Njaay léeg mu ngi leen di tam naa ñi dañuy sàccak dañuy jéew dañuy tux yàmba hmm. ñeneen ñi ay mànga yi nag ñooñu ay mag lañu ak hmm. Ibrahima mais ñooñu kii nanu mais ñii dama ci danoo déggoowul daal ki ci opp saas nag comme ñoom dañuy xuloo hmm. di xeex di tàmmante ki ci ëpp saas xam nga mooy kan hmm. ki àndut ak ñoom jàpp njaamuram kalm hmm. décroché ci làmb seere liggéeyam ba muy nekk ci làmb seere boppam seere wut sax mbir yi nekk i waaw kon kooku bu mënula jiite kon bu ñu yeboo deloowaat ko ci intellectuel ya rek ñu jiite ñu mais bu ñu xeexati dara mhm. bu ñu coowati bu ñu waxati bu nu fexee boo booy mhm. nu tey seen sensé bu ñu waxati soo technique nag moom wax dëgg yàlla xamuma ko xam nga koo xamul nag mënoo ci seede dara turam mën naa ne ci yow laa ko déggee dëgg la bari naa ko Youssou bu Père Balla Gaye waaw waaw léegi loolu lépp soo ko boolee ku bëreeg Youssou Ndour bu père bala Gaye kooku xale la mën da jiite dara. déedéet waay mais bi. non capacité bi capacité amul ah. foofu. ban capacité ku bëreeg Youssou Ndour bu père bala gay kay yaa ngi bëre ba léegi. kooku lan nga mën a jiite même bu bàyyee bëre xaadim ga jagaa ko mag te mën da jiite parce que xale moom xale la rek. Mhm. fugu xele bi dina ko jàpp. Mhm. te it expérience bi du demee noonu yow xam nga ko. bu jëlee boo ko joxoon CNC fii lay nekk di <laughs> waaw man de ki yeeg yi ko ci xale yeeg yooyu di kii eh. keneen nga may wax waaye boobu génération moom kooku day kii rek non de xam naa day day day day booy buy soo buy soob noonu rek. buy ah. soob. ah buy soob. day soob rek. kon yow da nga jàpp ne bëgg moo tax. non loolo am kooku ah, man xamuma ko mais bu dee moroomu ñoom père euh, Youssou ndur la. Mhm. parce que yaakaar naa moroomu ñoom Youssou ndur la. moom la bëre woon waaw. waaw yaakaar naa moroomu ñoom Eumeu Sène mbay Diouf sax ñoom ak ñooñu ñoom moroomu ñoom Tapha Tine ñooñu sax mënuñu jiite am mhm. amuñu expérience bi yow itam. Mhm. léegi loolu lépp.